tey ci aljuma ji njiital mouvement gëm sa bopp bi di Bougane Gueye Dany moom nag daal na amal ab doxu seetlu ñi nga xamante ne rek ñoo yëngu ci secteur informel bi moom nag ci mbeddu ndakaaru njaay yi daanaka wër na ko dalee ko fi nga xamante ni moo di kolobaan fii nag ñu fi ñëwee ab waay lañ fi fekk moom nag mi ngi daal di bandage euh, bët bi li mu xam ne rek mooy dafa daal di am ay gaañu gaañu ba bët bi sax yàqu ci jamono ji nga xamante ni ñoom ñu ngi doon manifester di wane maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu président Bougane ak ñi mu àndal yëpp délégation bi di wax ne man man la Ali dëkk fu ñu wax Mboyène Fakhan région de Diourbel département Bambey bokk itam ci ñi gaañ woon ci manifestation yi passé fii ci Colobane ñàkk naa gisan bin bët donc bokk ci ñi nga ne ñooy marchand marché hebdomadaire yi maanaam comme li président Bougane di dox ñun loolu presque ñun la ko defal ndax boo xoolee ñun daaw ba ren presque liggéeyuñu man mi wax ak yow nii parce que yoroon naa lu mot vingt personnes ma ma maa liggéey loolu tey mënatuma liggéey sax sax kenn nit parce que suma liggéey yàqu na ci Covid bi te loolu yëpp grâce à Macky Sall parce que feebar bi lu ñëw rek mu ne marché yi ñoo ko waral nangam nangam te ku yaakaar naa kuy créer liggéey waroo yàq ay liggéey te nombre liggéey boo xoolee li yàqu ci ay liggéey rek. moo ëpp nombre bi bi bi kër ñi ñàkk seen liggéey actuellement ma wax yow nii nii ñoo ëpp fuuf ñi war a kër liggéey te te ku gëm li mu wax rek yow la engagé ndax ku mënt ku la xañ reer xañ la ndekki bu la diggee añ dangay bokk da ngay gëmee sa sa sa bopp ngay nax. waaye itamit ñu fekk fii ay yaay yoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllum restauration ñoom nag lii lañu ñu gis ci bile doxantu. may góorgóorlu di liggéey boobaag léegi kenn fekk ñu ñëw photocopie suñuy carte d'identité ñeen ñuy wutal courant maa ngi nii lamp weñ laay taal ñu ne dañuy wutal courant laay jënd di taal jël suñu carte d'identité photocopie jël suñu lépp gisuñu dara ba léegi yow yow en tant que ndaw léegi lan ngeen xaar waaw euh, nguur gi concrètement nguur daal mu jàppale ñu jàppale ñu ndax sonn nañu jàppale ñëpp jàppale xale yu góor yi jàppale xale yu jigéen ñi ah, bëgg nañu liggéey waaye yoruñu xaalis ñu lu ñu liggéeye mu jàppale ñu dañuy xëy 6 heures du matin dañuy yeewu ñu nelaw sax yendoo liggéey ba ngoon jot waaw ñun bëgg nañ ko ñu jàppale comme yow moom yow xam nañ gis na li ñuy li ngay def ci aska wi gis nañ ñi ngay jàppalee nit ñi bu baax yaa ngi jàppale nit ñi yan na la yàlla yokk ci kanam client yi bëreetul ci la problème bi am depuis feebar ba mu commencé ba léegi client yi bëreetul marché aussi jën dafa seer lépp dafa seer saaku bidon diwlin 22000 lay jar est-ce que ñu ngi leen jàppale nañ leen benn yoon ñun kenn jàppalewuñu dara ñu ñooy ñun ñooy débrouiller suñu bopp rek kenn jàppalewuñu ci dara. ba ñu fa jógee nag daal di nañu dem fële ca centenaire foofu nag ñu fekk fa ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee ay cag-cag waaye itamit ñu xamle ne bëri na jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy dundu jafe-jafe bu ñuy gën a jànkonteel mooy mooy en fait bon les les scooters sans papier mooy maanaam li ñuy sàcc suñuy scooter en général policiers yi dañuy jàpp trop dañuy jàpp mais au fait duñu immobiliser les moto dañuy bàyyiwaat booy yi ñu dem. ñun ñun ñun les livreurs ñun moto yu ñuy yor yëpp dafay am kayit day am kayit complet donc amul livreur professionnel boo xamante ne mi ngi daw au Sénégal te yorul euh, kayit complet donc ñun du ñu sàccee suñu moto yeneen booy yu ñuy wax peut-être des petits livreurs ñoom en général dañuy yor des scooters yoo xamante ne amul kayit policiers yi bu ñu leen jàppee du ñu immobiliser moto yi. d'accord dañ leen di waat ñu dem dañuy dañ leen di fayloo après ñu bàyyiwaat leen ñu dem donc du coup ñun ñooy nekk victime ñooy nekk victime de tout le monde. bon lii c'est une première d'abord waaw c'est une première bon ñu gis koo xamante ne mi ngi annoncé wu pour ñun ñu ñëw envers lui bon loolu moo tax sax ñun ñi ñu ñëw le matin. envers mm, lui mm. parce que moom il l'a annoncé à la télé ñu gis ko loolu moo tax ñu am audace su ñëw présenté wu. parce que amul kenn ku ñëw ci ñun di présenté wu pour ñu ñëw ci ñoom y en a pas quoi. li ñuy xaar lu gën a lu ñuy mën a yombale suñu liggéey mooy a fait ñun on veut se structurer quoi vraiment dañu bëgg yor ay structure déjà on a commencé dans certains d'entre nous am na ci ñoo xamante ni ñu ngi structuré wu parce que entreprise yu ñuy liggéey c'est vrai que dañ fay doon liggéey parce que ñun ñëpp en général ci entreprise ñu jógee de livraison mais entreprise yi ils ne payent pas. duñ ñu fay duñ ñu fay en fait euh, li ñuy liggéey. donc euh, moo tax yéen ngeen dem vers l'auto-emploi ñu génn ñu génn ñun on a créé nos trucs pour commencer di liggéey quoi. entreprise yi da ngay dem di liggéey tu te casses quatre casses la tête du matin au soir te ils n'arrivent même pas à te mais c'est grave. ça ça dire quoi ça veut dire quoi euh, liñ leen di fay. liñ ñuy fay dañuy fay ay cinquante mille ay soixante francs par mois. c'est des c'est ça. am na sax ñoo xamante ni am nañ yeneen liggéey mais su tàggatee mbéwee rek dañuy daal di ñëw ci lii di càkk càk comme nuñ ko gisee waa ji moom mu ngi nettali jaar-jaaram. Diourbel laa dëkk tudd Assane nekk fi naa di liggéey cordonnier mais su cordonnier bi dëgër damay su su dëgëree ba dëgër damay taal sama moto après ma liggéey ci. su dëgëree ma càkk-càkk mais ku ma dàq liggéey daal amul fii ci amul fii ci Dakar. mais tey. waaw lu tax mënatoo liggéey daal. parce que sinon ay nekk fii la. duñ ko nëbb nan ko wax ci kaw. man suñ mag suñ créé woon entreprise fii teg ko fii Sénégal barke Seexul Xaddim mi ma yaakaar ma def fi loo xam ne day jaaxal sinois yi parce que man man seul uude bu nekk fii Dakar di liggéey la sinois di ñëw di couper samay bagage di ko liggéeyaat di ko ci ay conteneur parce que yow foo liggéeyee fukk ci journée bi ñoom liggéey nañ ci cent. non liggéey nañ mille. oui li ma lay wax nii barke Seexul Xadim soo neexee nga yebal journaliste am na ko fi taxaw léegi moom xam na ma baafal bi moom xam na ma nañ su su su ko neexee ngeen def déplacement ngeen ngeen ngeen ñu place ngeen ñu place ma wan leen loo xam ne ne sinon bi sax damay copier. donc yow uude nga da ngay defar ay dàll. waaw mais bu laal yi doxul da ngay dem jël sa scooter dem cag-cag. maa ngi nii Fatou wala jógee nii doon cag-cag ndax ndax dëkk bu dëgër xoolal. xam ça ça par exemple les rédactions ne savent pas ah. taxaw rek di ñu wax loo xam ne euh, amul. Bougane xoolal lii liggéey xool limaako liggéey xool limaako liggéey xool lii maa ah liggéey soo defee foofu noon soo defee foofu noonu nga defaat nii. li sama daal la maa ko liggéey ah léegi ni yëpp daal la dara daal dong laa gëm mais muy ñuy jàmm dem naa ci gaal yi quatre fois ah gaal bu mujjee dem soixante-dix morts la ma bokk ci rescapés te barke Seexul Xadim su gaal taxawaatee tey damay demaat ak sama bakkan doom parce que loolu laa gëm Chinois yi ñooy yebal fii nit sénégalais comme man mu ñëw yor big bi caméra ñëw sans place caméra daal yi may liggéey même pas même pas deux deux mois ñu wàcc ay conteneur man duru mën a jaay hmm. ndax loolu na ci xol sama rok pa bu sa papa ndey ak baay bi mu dee ci gaal maa ko jàpp sànni ci ndox mi tiiw dama demaat hmm? ah waaye ban espoir maanaam yaakaar daal tas na. ginnaaw centenaire nag dañoo dem ca Sandaga foofee nag kii di président Bougane Gueye Dany daal dina fa janook ñi nga xamante ni ñoo di chauffeur si ñoon ñoom nag tawat nañ bu baax baax seenu jàngoro ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany. xaalis ci boppam ku ko am na ko téye man soxlawu ma man kenn lu ma jëlee xaalis dama ne réew mi li koy doxal dafa yomb dama ne li Sénégal li yàlla def ci adduna bi yëpp ñu koy wut. yàlla daa dajale lépp Sénégal muy jamaa bi muy or bi muy pétrole bi muy zircon bi muy fer bi lépp a ngi fi muy gaz bi géej gi doo nga mën naa yor Sénégal ñu fab géej gi sam jaay ko adduna bi ba mënuloo ci am dara moom ñëpp ay taxawaalu kon Sénégal kenn du same réew yi a dee bu nu añee doon reer bu nu reeree doon añ te dara man ñi nu jiite silmaxa war na jiite da bam jaan te silmaxaanu jiite ndax secteur informel moo yor dëkk bi informel yëpp ñun ñoo leen di indi fii Dakar ñun ñoo leen di delloo. dëgg la dañuy xëy 4 heures du matin ne ci oto yi. du kurti kurti ba jot. wallaahi bi la ñu wàcc amuñu horaire de travail on nous paye bien. on sommes nous sommes pas rémunérés te war nañ ci mën a jóg war nañ cee mën a wax. damay dëgg y a un un gars nag ne gis nañ ne tey jii il œuvre pour le développement de la jeunesse. pour l'émancipation de la jeunesse yow la yow la ñu àndal te dinañ la jox suñu ñu àndax boo ñu defalee ñu defal la boo ñu defalul duñ la faale. ba ñu fa jege dem nañ fële ca Dakar Plateau ñu fekk fa ay marchand ñoom naka ñu ngi xamle ni dañ leen dëgër piir léegi mu mat at te boobu ba léegi gouvernement bi taxawu ci benn yoon ba tax na sax seen liggéey bi tagatémbe ñoom jamono ji naka ñu ngi àddu ak xol bu tàng lool. 1000 francs laa commencé njaay. 1000 francs 69 état mosuloo defal dara amul kenn ku a defal loolu am noo ko ñaq suñu bopp di ay taalibe di ay jullit même ñu di ay jullit ñu ngi fi ñun ñëpp lu doon benn ñoom ñu ñëw toroxal nu nii waaye nag yàlla moo mën a toroxal doomu aadama yaakaaruñu leen ci dara dara danañu jag ñun yàlla liñ ñu toroxal di xamoo ko yow dañuy wax mi ngi nii jëlee nu fi ñu nekkoon te defuñu fi dara ba defuñu fi dara te dañ ñëw juróom-ñett Euh, kii bala un an et demi lay am léegi juróom-ñeenti weer a ngi fi defuñu fi dara dimbalewuñ nit ñi liggéey taraan réew mi dañoo bëgg mu yokko réew mi di yokk mukk ndax buñ ne feeg ñi ngi fi ndax dimbalewuñ ñiy liggéey ni kuy jaay dooleem nun duñ sàcc duñ fen duñ rambaaj duñ siransal kenn ay dàllam fii ñu ma yàqal man dama aventure ji woon tey xam nga yaakaar naa ne def nga aventure xam nga lan moo émigré 90 ba léegi ma ñëw liggéey sama alal defe naa li ñu ma yàqal fi place bi ci gën a yomb ma jënd ko maa ko jënd 15 millions 500 mille te bari naa ci ay morom kon defe naa ne bu fekkee ne da ngaa bëgg Sénégal def loolu defe naa ne kon boo nee nu bëgg nga Sénégal da nga koy fekk ay citoyen fekk ay père de famille nga jël yàqal leen seen alal ci période boo xam ne yaa ngi doon dimbali Moustapha Diouf laa tudd man damaa bokk ci association ànd taxawu Sandaga euh, nekk ci nekk ci euh, cadre de organisation te defe naa ne sand gi xëy nu xëy dem fi parce que président dafa am lu mu fi digoon pendant des années boobaa léegi gisuñu ci dara bi ñu demee yebal na fi benn ministre boo xam ne di ko wax Abdou Karim Fofana ñëw na revinaare suñu recasé suñu bagage yëpp yaakaar naa ni mënu def noon la def mécanicien yi noonu noonu la def ministre yi noonu la def ñëpp. ñii di yëngu ci wàllum artisanat nag fàttewuñ leen benn yoon ba tax ñu ñëw fii ci Fass canal 4 ñoom nag janoog nañoo ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye wax leen bu baax a baax li leen métti. imagine toi lu toll ni presque 4 kilomètres canal bi ay jeunes nekk monte seen entreprise bëgg avancer kooku ko jàppalee day dem. ñun nag luñ suñu kàddu lenn la parce que li nga def nii kilifa noonu lay doxe kilifa day xam lan la bëgg il faut rester à l'écoute écoute du nopp moo koy def nopp tànd oreille la rek mais booy déglu mooy kilifa da nga war a taxaw déglu xam askan bi lan la ñuy jooy lan la ñu bëgg nga fexe si leen fekk si waxtaan ak ñoom nga trouver solution. mais tey importé boo ne rek ñuy jàppale boo ne bu ne importé bu mu fi ñëw benn importé dootu fi ñëw kon ñun ñëppay liggéey. mais boo nee importé ñuy jàppale bëgg indi ay vin importé seen jabar yi ñoo ko fiy jaay ministres yi dañuy waxante dëgg ñun xam nañ business bi ci la ñuy liggéey ñoo ko fiy jaay duñu ko jaayloo mais tey buñ ñu ko indee ñun nan la ñuy jëndee suñuy bagage dañuy waxante dëgg tey jii nii lu président li mu war a def kon bu jógee ni suba def ñuy jox employé ay xaw ma gannaaw démb xaw ma fële xaw ma lu ñuy waxati xaw ma jam ñaajo loolu mënul nekk ñun ndaw ñi ñun dañuy xëy di liggéey man li ma lay wax ni li ma employé nit mënu ko xam employé naa plus de cent personnes te nit xam ko fii ku ma ko fi wax doo ma gëm soo ma gisee jaay pare nga may teg mais liggéeykat lañ mais jàppalewul wul yi. jafe-jafe ay étape la dañ naan un la ba millier dañuy dem rek parce que tey dañoo dañuy ñaan yàlla secteur informel bi du wéy parce que war nañ dox tey war nañ appeler Sénégal mu dem à l'industrie ñun war nañ mën a dem ànd appeler à l'industrie tey Chine nu mu dominer monde bi lan moo tax. parce que dañoo am ñu leen accompagner ba pare ñoom am nañ main d'œuvre mais ñun am nañ main d'œuvre mais amuñu accompagnement ba pare ñun tey jii boo duggee suñu bureau autorité yëpp dafa fekk Médina Sénégal dafa fekk tey tubaab bi mënul liggéey lu ñu jaaxal tubaab bi lenn rek la mun a liggéey loo xam jaaxal nañ mun na la livrer mille portes par jour ñun amuñu capacité boobu mais tey jii imagine toit boo jëloon nga accompagner jox lu ñu leen matériel qu'il faut xam-xam bi am nañ ko. loolu demande demandé dañ la koy offre dañ la koy jox. waaye itamit di rafetlu bile taxawaay mu am jëmale ko ci secteur informel bi. man li ma gis ci jeunes yi ku leen di jàppale dëgg bu seen bët yi xonqee mu ñëw taxaw seen bët bu tooyee mu ñëw taxaw kii laay gis chaque jour dama koy gis ci télé bi barke alxuraan fenku laa jublu Baye Niass laay waat chaque jour dama naan bugaan kii li muy def nii mu ngi jàppale jeunes yi. mu ngi dimbale jeunes yi parce que ku bëtam xonq tool daalam dem ba foofu xool leen wax leen bu amee aslëfam dimbali leen mais fii dañuy wax dëgg président mosu fi wàcc ba mu toogee fii ba tey président musu fi teg tànk fii président musu fi teg tànk kenn fan yii yëpp dañu fi bëgg lu ne la ñuy wax ñun dañu war a dimbali ñun ay jeunes lañ ci dëkk bi lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yoroo amuñu beneen passeport. mu doonoon nag teewaay bu neex lool ña nga xamante ni ñoom la président Bougane Gueye Dany demoon seeti ba tax na sax ñoom ñuy daal di féddale seen kóllëre ak it kóolite bu ñu am ci moom mi waaye nag di gën a xamal jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy dund.